الحمد لله الذي أغناني وأعزني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 yaa waliyallaahi yaa nuura masaabi hadratillah mbokk yi di bàyyi xel Ali Imran TV ci suñu jotaay suñu gan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu niñ leen ko baaxoo di indile saa su nekk ci suñu jotaay nga xam ne dañuy faral di dalal ay ndaanaan Chérif nag tey dañoo dem ci benn écrivain boo xamante ne malgré sonage nga xam ni ndaw la wala nekkul ndaw yooyu noonu ay nekkul paa boo xam ne paa la daal sa morom la Chérif amoo benn kii mu bind benn roman boo xamante ne œuvre la bu réaliste peut-être fiction lañ koy mën a woowee waaye œuvre la bu am solo nga xam ni amaana ki koy liir mën na fexe ba jàngati ay jàngat yu am solo su ko defee Chérif laata loolu rek dañuy bàyyi suñu ganu bës bi monsieur Babacar Diouf mu nuyoo ñu soog a dugg suñu jotaay incha allah sëñ Babacar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa maa ngi leen bu baax te di leen seen déplacement euh, ba fii nii. Euh, di am mbégte aussi dalal leen si suñ euh, suñ barab bi nga xam te ne mooy suñ siège pour parler un peu du livre donc euh, voilà man moom comme ni nga ko waxee rek euh, Sénégalais la comme tout le monde je suis lépp lu may bind la si pour mm-hmm. essayer jëriñ sama réew sama askan les mm-hmm. générations future mm-hmm. parce que c'est comme ni nga ko waxee livre bi c'est vrai que ça ça dafa am facette fiction mais mais de fiction en tant que tel parce que dañ ko bind mu souvent ci ay réalité yoo xamante ne c'est palpable ça existe Ça existe dans le passé, le présent, et sûrement on, le, on les verra aussi dans le futur daal maanaam. Mm-hmm. donc xam naa si vous avez des question rek man je ouvert. <laughs> macha allah monsieur Diouf on en a agogo question yu bëree bëri lañ la dencal tey waaye laata loolu rek lañ lay bàyyi nga présenté wu amaan euh, Sidi mi nga xamante ne xamul kan mooy Babacar xam kan mooy Babacar. waaw bon comme comme ni nga ko waxee rek euh, Babacar moom c'est un jeune sénégalais un jeune écrivain. on peut dire waaw en toute humilité euh, maa ngi am diplôme nag ci droit des affaires internationales ak science de gestion mm-hmm. université Dakar Bourguiba fa falaa jànge mm-hmm. fa laa samay diplôme mais su suis natif de Diourbel maanaam Diourbel laa Diourbel laa juddoo fa laa mm. euh, daanaka maa ngi dugg si écriture ay à peu près ay mille quinze mm-hmm. waaw ci laa commencé di di bind sama roman bi nga xam te ne moom laa njëkk publier Sangomar et le pacte avec les ténèbres dans mm-hmm. ces deux tomes. Mm-hmm. tome ooyu moom moo génn 2016. bon jotoon naa dem ci ay plateau télé ñu bëri xamoon nañ ko aussi livre aussi ñu ko édité en France. Euh, loolu moo waroon sax accès bi tax ko woon teel am Sénégal noonu mais maintenant c'est possible daal maanaam. su ko defee man maa ngi maa ngi âgé de 35 ans. waaw am na 35 ans mag de. da xaw a niróo Paa sax nag Paa séeréer yooyu. Euh, Dixit suñu invité du jour nee na seuls les âmes illuminées combattront les ténèbres et allumeront les flambeaux de la liberté lu tax loolu. quelle est votre source d'inspiration. waaw da ngaa posé question lu waral citation bi ak la moo ko inspiré. waaw xam naa dama njëkk a tontu ci citation bi seuls les mm-hmm. âmes illuminées combattront les mm-hmm. et porteront les flambeaux de la liberté mm-hmm. parce que lii day wax ci xeex lëndëm ak leer moo tax day wax ci xeex lëndëm ak leer dama dama mu nekk ñaari pôle yoo xam ne dama leen a présenté avec toute leur force et toute leur possibilité ak lépp lu ñu mën a naw su ñoom ak lépp lu mën a ragal su ñoom alors seuls les âmes illuminées dañoo toll époque boo xam te ne époque bu lëndëm la boo xam ne ku ñu leeralul doo mën a xàmmee ràññee ba mën a tax nga mën a combattre yéen yi nga xam te ne mën nañ ko considérer mu ngi bokk ci le camp des ténèbres mm-hmm. mooy lépp li félo bi tax ngëm dañ ci kaw suuf mm-hmm. wala lépp li félo bi tax maanaam euh, jikko yi ñaawi tas ci àdduna mm-hmm. moom la ñuy dund actuellement nii ki nga xam te ne il n'a une âme illuminée moom du mën a seetantal ba xàmmee lu bokk ci leer ak lu bokk ci lëndëm loolu moo tax ma ne c'est les âmes illuminées combattre les ténèbres ñoom rek ñoo mën a xeex mbon ci kaw suuf ba pare porteront les flambeaux de la liberté boobu mhm. vas-y bismillah macha allah kon espérons que am sera ba nga xam ne dañu mën a xàmmee lii leer ak loolu la def sëñ Babacar lan moo la inspiré waaw li ma inspiré nag bëri na inspiration moom dafa misaaloo comme comme comme marmite booy togg nga xam te ne éléments yi bëri dañuy intervenir di gis ndox ci biir ay légumes di nga gis ay assaisonnement ay jën wala yàpp la neexee loolu yëpp da ciy bokk daal donc y a beaucoup yu ma inspiré ba tax ma mën a togg livre bi nii bokk na si euh, li ma inspiré mooy ay sciences spirituelles parce que ma nekk koo xam te ne aussi damay gëstu ci wàllu boobu noonu xam-xam xam-xamu leer euh, dama ci gëstu damay bàyyi xel aussi euh, les sciences occultes su ma ne damay bàyyi xel les sciences occultes maanaam dama ci damay bëgg tout temps di comprendre yu bari yu may gis ak yu may dégg ci wàllu boobu pour xam exactement ñoom nan la ñuy doxee parce que boo comprendre ab système doo ci mën a wax doo ci mën a bind daal maanaam mm. mais tekkoo ne dama adhéré si ñoom wala genre déedéet mm. alors euh, bokk na si loolu noonu mooy les sciences spirituelles parce que Afrique boo xoolee c'est un continent de mysticisme continent la boo xam ne dafa bëri ay euh, dafa bëri mystique mm-hmm. mooy suñu ay réalité mm-hmm. te mystique boobu noonu dafa am influence mi am ci société yi euh, am influence mi am ci suñu gouvernance état yi état yi am influence mi am aussi ci ay domaines yoo xam te ne xëy na peut-être tax duñ ko mën a leeral ci à travers la télévision et autres daal maanaam. Mm-hmm. naka noonu aussi noonu la amee science et puis boo xam ne ci wàllu leer la. boo xam ne suñu parcours am nañu chance euh, géej gis yu bëree bëri bëri ci ay points yu yu ute yu fasantiku yoo xam ne bu ñu tàmmee mën nañ ko leeral daal maanaam. Mm-hmm. Ah, loolu mooy premier point bi deuxième point bi mooy euh, euh, bokk na si li ma inspiré mooy l'Afrique en tant que damaa seetlu ne surtout continuant la boo xam te ne gars dañ ko kii dañ ko dañ ko suul dañ ko suul dañ ko dañ ko fàtte euh, au profit euh, maanaam yeneen continent yi Amérique Europe et autres nga xam te tey jii même boo xoolee dans le domaine du cinéma ñooñu seen peuple ils sont ils ont fait la promotion de leur peuple mm-hmm. et de leur réalité euh, mais Afrique moom à chaque fois bu ko wanee tele guerre la ñuy wane ay mm-hmm. ay rébellion ay famine ay maladie alors je me suis dit que il est temps que ma mettre l'Afrique au devant mm. exposer que devant la galerie internationale euh, du cinéma et la galerie internationale culturelle pour que ñi nga xam te ne ils sont en dehors de continent mën a xam exactement Afrique ban couleur la parce que souvent média dañ dañuy nax ñu mm. bari ñu nekk ay Europe Amérique di leen wan ay images yoo xam te ne dëgg-dëgg du loolu kese te loolu sax boo mm. bi nga xam te ne yaatu na yaatu boo xam te ne mën na lekk France ci côté taille mm-hmm. alors donc ma bind livre aussi bokk na si ay idéologie panafricaniste maanaam euh, idéologie panafricaniste suñu koy wax mooy ñi nga xam te dañoo dañoo gëm la souveraineté africaine. Mhm. ñi nga xam dañoo gëm ni les chaînes yi ñu reliées avec la colonisation et la néocolonisation te mu mhm. néfaste si suñu déroulement ak suñu développement africain. Mhm. africain plutôt maanaam euh, jot nañu briser les chaînes daal maanaam à travers ay idéologie ak ay messages yoo xam ne vraiment sa ça contribue à réveiller à éveiller les consciences et les mentalités. waaw loolu bokk na si tamit li ma gën a poussé moo tax boo ñu xool dans le bu voyez bu verrez beaucoup muy mm-hmm. ñëw ay la nom africain africain day ñëw lu bari. effectivement waaw moo tax ma contextualiser ko en Afrique avec des noms qui sont africains avec des lieux yoo xam te ne boo ko recherché sur la mm-hmm. gis ni c' est pas des lieux imaginés mais ce sont des des lieux qui existent qui, qui sont palpables. Mm-hmm. te ko am paas mun faa dem. <laughs> macha allah monsieur Diouf Sangomar et le pacte avec les ténèbres Sangomar dafa mel ni turu séeréer la de. waaw waaw Sangomar en fait tax ma jël ko sax. Mhm. du kese kese affaire ay séeréer yu ay xeet mais dafa Sangomar dafa nekk benn site boo xam ne foo dem ci àdduna bi xam nañ ko ba suñu président yi suñu suñu gouvernement am nañ benn avion boo xam ne ñu ngi tuddee le Pointe de Sangomar euh, benn avion maanaam te am na lu muy représenté sa Senghor dafa daal dem lu bari moom moom moom île boobu noonu Sangomar te île la boo xam ne mu ne ni ñaari nit ñoo fa mos a dugg Senghor ak benn pël boo xam ne moo fa ay nakk Mm-hmm. bëri nag bëri na nag ay légendes yoo xam ne ñu ngi ko fay raconté daal maanaam. Mm-hmm. mais xëy na bu ñu ko tàmmee mën nañu ko jàllale mais. Mm-hmm. bokkoon na si tax ma jël ko benn il ma fallait un nom qui boo xam boo ko déggee da nga xam lii tur Afrique la. muy renvoyé tamit benn lieu boo xam te ne boo demee ci Afrique da nga ko fay fekk du ay lieux yu ñu imaginé. muy renvoyé aussi benn appartenance boo xam te ne maanaam da nga xam lii Sénégal la nekk donc foofu damaa bëggoon aussi wane wàll sama réew daal ma en tant que doomu réew mi mettre en avant fi nga bokk day mel ni comme si da ngaa sa cosaan wala genre. Mm-hmm. xam nga léegi nag mu amala coïncidence mu laalaale ci séeréer tamit waaw. mu laal ak séeréer en tout cas jéng na de te féete na boor merci beaucoup pour la réponse su ko defee monsieur Diouf ba tey dañuy ñëwal ci le fond de l'histoire de Sangomar euh, tom 1 bi jot naa ko xool su ko defee damay gis euh, comme genre da nga ci décrire li nga xamante ne leer la ak lëndëm léegi leer googu ak lëndëm da nga mës gis koo xamante ne comme ni nga ko décrire c'est tellement réaliste euh, c'est comme si soit da dund koo xam ne bëggoon na la copte ci côté bu lëndëm wala da nga xam koo xamante copte nañ ko côté boobu tentation du diable. waaw sama parcours jot naa jot naa frole genre tentation yi mel noonu jot naa am ay ay proposition jot naa am ñaari proposition sax yoo xam ne peut-être du ma wax seen tur fii parce que xam nga rek euh, dafa c'est un peu confidentiel. Mm-hmm. Euh, lu yéeme la nag loo xam te ne ku ci ku ko frottéwul doo ko xam daal maanaam effectivement bokk na si bokk li ma gën a inspiré parce que. livre bi certes fiction la mais li ngeen ci gis ma wax ci ténèbres yëpp ce sont des réalités qui waaw man na man moom noonu laa liggéeyee ko dama jël fiction euh, tax ma jël fiction sax parce que lecture dafa jafe léegi. Mhm. nit ñi amatuñ temps. du coup boo lay mënti fixé sur les trois premières pages. Mhm. sa œuvre kenn du nga ko lire daal. te bu fekkee sa œuvre dafa am pas pour bind pour bind kese kese pour bind rek pour nekk écrivain déedéet. Mhm. mais yow toll époque boo xam ne da nga war a jàllale ay messages yoo xam ne ça pique les et les esprits. Mhm. donc bu fekkee da nga am ay message yu mel noonu il te foo il te faut benn moyen de communication boo xam ne dina pousser nit ki à ce que mu jéem a message boo c'est quoi. Mhm. loolu moo tax may jaaj fiction agréable boo xam ne da lay plonger boo koy lire da sànn ci ay imagination yu kawe mhm. yu agréable yoo xam da ngay am envie xam la suite. ci biir loolu après ci laa jàllale sama ay messages xam nga sama enseignement ak ay informations yi nga xam ne bëgg naa ko bëgg naa ci sensibiliser nit ñi tamit daal maanaam. loolu moo tax muy utiliser la fiction. Mais dans le fond de l'histoire, quand vous entendez le pacte avec les ténèbres, mm -hmm. c'est quelque chose qui existe, pas seulement en Afrique. Mhm. Nous qui initié ça, on peut dire que ce pas des Africains, parce que l'Afrique mhm. n'est qu'un continent de mysticisme, avec euh, domaine occulte amee doole pourtant nous avons été colonisés. Mhm. tubaab ba ñu ñëwee fekk nañ fi ay borom xam-xam yu kawe yoo xam te ne mën nañu anéantir ay noon yu nekk à des milliers de kilomètres. mais tubaab bi aussi ñoom xamoon nañ genre pratique mel parce que ñoom seen dëkk yi. Il y en a certains aussi qui faisaient des pactes avec le diable du coup ba ñëwee moo tax waa ba ñëwee Afrique ñu mënoon concurrencer ak boroom xam-xam ñu fekk la mu waral sax mystiquement jotoon am influence ci colonisateur yi. Mm-hmm. colonisateur bi jotuñu woon am daaw ñu daaw dégg ñu benn tubaab dafa ñëw fii ñu liggéey ko mu dee wala benn tubaab dafa ñëw fii ñu def ko loo xam te ne mënut woon dugg ci ab dëkk jàpp ay nit yóbbu leen def leen ay jàmm mm-hmm. non non pourtant ci dëkk yu noonu dugg di jàpp ay nit di leen def ay esclaves. Mm-hmm. fekk ay. Mm-hmm. ñoo xam te ne yëngu woon nañ ci science occulte ay niveau yu kawe mais mu ñu woon dara si tubaab yi daal. Mm-hmm. juste pour dire que science la boo xam ne du Afrique kese lu juddoo. Mm-hmm. c' est connu partout dans le monde que ça soit en Europe en Amérique. ou en Afrique. alors la moo tax ma daal koy jël pour marquer un peu le territoire benn empreinte la boo xam ne. Euh, benn porte bu mu ubbi pour mën a développer certaines informations yu mu bëgg jàllale. donc euh, xëy na buñ ko temps mayoon dinaa mën ci cooptage boobu na ngay wax. da nga ciy dugg moom kay faw nga dugal ma ci cooptage xaw ma je suis trop curieuse pour savoir man Babacar nu mu def ba xam ni par exemple Sangomar c'est lié avec SARC dem ba jël pouvoir boobu léegi. li la inspiré certes c'est une inspiration boo xam ne mën na fictive mais li nga dund réellement. waaw li ma dund réellement moom. waaw c'est un peu similaire boo xoolee. bon dafa amoon dafa amoon benn période boo xam ne mhm. dama nekkoon di def ay recherche mhm. ci laa commencé def ay recherche sama sama livre beeg yooyu noonu di bind mhm. après dafa amoon nag benn benn nit boo xam ne dafa bokkoon ci benn benn genre secte benn secte boo xam ne dafay teer la noonu du ma koy wax fii daal maanaam mais mais ils sont si en Afrique si au Sénégal tamit léegi bon doo xam ñoom la moo leen attiré si yow doo doo comprendre ce qui les anime mais il a franche quoi amoon na franc parler ba mu ñëwee ñu waxtaan ñu xamante pendant ay ay un mois à peu quelque après ci la commencé di ma expliquer di ma jox information yu graw ci domaine occulte di ma xamal affaire yu yéeme ci seen ay yëngu-yëngu daal maanaam ak seen xam-xam yi fi ñu koy puiser yu mel noonu mm-hmm. bon en faisant l'impression de s'y intéresser ma koy dégg ñu wax ma koy poser ay questions après bon après quelque temps mu ñëw ne xool na ma mais dafa gis ni ce serait un bon élément pour mën a adhérer seen seen seen segment noonu quoi xam nga <laughs> bon au début nag ça me peur parce que bëgguma woon jël bëgguma ko woon woon ni nii je suis désintéressé bëgguma ko woon aussi ni je suis intéressé mm-hmm. parce que doo xam après intensité bi ak mm-hmm. nu muy demee daal maanaam mm-hmm. bon saa yu ñëw il après appris beaucoup de choses nag jàngal na ma wax na ma yu bari xamal na ma yu bari bokk maanaam ci seen ci léegi moment bi nga xam ne dem na droit bi but ci la ma xamal ni moom moom bëgg na ma adhérer mais pour ma adhérer nag faut qu'il soit franc quoi maanaam da ngay jaayanteeg seytaane daal maanaam ngay def le pacte avec avec Lucifer. Mhm. waaw léegi loolu noonu lu muy demee man laa ko léegi loolu loolu tey su ma demoon ba war a accepter loolu qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer mun ma da ngay am richesse da ngay am célébrité. Mhm. mun pas da ngay da ngay da nga da nga ngay bind livre ma ko waaw mun na boo ci bokkee de dina la dégg fu ne ci àdduna bi. Mhm. c'était en 2016 2017. dina dégg fu nekk ci àdduna bi di nga am influence te di nga xamante ay autorité yoo xam te ne tey jii daanaka mën naa ni say gain yi ngay am sax du nekk ay salaire daal am ay mhm. xaalisu relation lay doon. Mhm. dina la jàngal aussi ay xam-xam yu extraordinaire yoo xam te ne di nga mën a sax génn sa jëmm voyage ak sa am dellusiwaat. Mhm. waaw ci li ma explique moom mën na ma du xamoon nga Pépé Kale Pepe Kale mën na ko waaw chanteuse zaïrois boobu mun ma effectivement ci secte bi la bokkoon mu ne moom lu ko rey mooy dafa voyagé woon génn jëmmam ba mu ñëw fekk gars yi foon dafa dégg ñu daal di enterré corps bi oh, oh. moom loolu moom wax na ma aussi ay président yoo xam te ne ci kii lañ bokk m'a donné beaucoup d' information ci Sénégal yoo xam te ne après teg naa sama bët daal c'est affaire bu mm-hmm. mu ne ma nag bon ñun dañuy def ay cérémonie occulte yoo xam ne boo si bëggee bokk su biir mbooloo mi il faut nga am foo jaar maanaam fi nga war a jaar foofu boobu fu ñu lan ñu la fay jaarloo c'est pour que boo dugg si ñun bu indaale benn melo boo xam te ne iblis mm. bëgg ko. mën mm. na ko melo boobu mooy benn genre melo mu ne ma il faut lépp li leer yàlla bu mës a toog sa xol dafa mu dañ. mu ne parce que xam naa da ngay jaamu yàlla da ngay julli da ngay woor et tout te ku mm-hmm. la gis xam ni tout temps yaa ngi ko plus et autre. waxtaan ak yow sentir ne maanaam. am na leer gi ne ci yow genre daal maa ci wax am na bokk maanaam wala njeexantalu werd yi ngay def mu ngi si yow ma yooyu nag gars di nga ko bëgg ci biir parce que daf leen déranger léegi du coup il faut ñu def loolu benn acte boo xam ne mooy tax yàlla dalay lay tamponné tampon mooy da lay génn seen maanaam dootu la xool da mhm. dootu la gestu mhm. ndax su boobaa ci leen li mën a xajoo exactement suñu biir entité bi ma ne ma ne ko mais loolu noonu war na rëy jëf boobu moo nit war def ba yàlla war ko tampon mu ne pourtant jëf bul simple la boo xam yàgg nga ko gis yàgg nga ko dégg am na nag yu bari mais yi les propose moom du nekk lu metti quoi. Mm-hmm. ma ne ko alors lan lay doon su boobaa. Mm-hmm. mu ma da ngay seeg góor comme ni góor jigéen ñi def genre yu mel noonu daal ma <laughs> ma ne ko mu ma waaw mu ne su boobaa yow après dañ lay boole sa benn parrain nga tëdd ak moom genre noonu lay demee. Mm-hmm. mu ne parce que loolu mooy méthode bu gën a gaaw pour effacer lépp loo xam te ne. njeexantalu jàmm yàlla boo xam te nit mos ko am. te boo boo fa jaaree après ci la la iblis di la xajoo suñu suñu suñu kuréel mun ne nag après boo ñëwee. Mm-hmm. dañ lay lay lay fuuti comme ni nga juddoo gas kàmb def la ci nga dugg ci ba ñu muur ko benn sër bu ñuul def ay incantation incantation ba ba créature bi génn mooy ki nga xam ne moom la ñuy vénéré genre daal maanaam. Mm-hmm. waaw ci lañ koy wax ne ko diw daa bëgg a bokk sa waa kër. après nag ci lañ jël si coupe de sang xam nga comme ñun def mel noonu. dugg si ay domaines yoo xam te mun mën ma ko leeral fii quoi franchement. waaw c'est tout juste irréaliste au fait. mais lu am na nag quand parce que après euh, dafa ñu yoo xam te ne jig dund naa ko daal yëg naa ko mais c'est extraordinaire. déjà. c'est des choses qui existent. Mm, je ne savais ni sax yu mel noonu mi ngi amaana ci réew mi. vu que ni Sénégal c'est un pays connu islamique nga xam ne ay mag yu baax ñoo fi nekk donc partout dans le monde il y a Sangomar yoo xamante ne actuellement ils sont au Sénégal jeunes euh, genre Babacar yi xëy na yàlla rek <laughs> def sutura ñu mucc ci mais il d'autres yoo xamante ne ils son les victimes léegi su ko defee monsieur Diouf dañuy dugg ci le fond de Sangomar Euh, ci tome 1 bi ba tey dañuy gis ni Sangomar euh, est un xale la ndaw la am doole waaye pour vaincre toute une union jaral ko mu jaay amam au diable est-ce que euh, loolu noonu da am na lu ko war a jar ci àdduna jaay sa am au pour conquérir une union africaine l'importance d'une union laa bëggoon xam d'abord union africaine waaw waaw loolu xam naa damay def benn benn genre résumé bu bu ndaw. bu mhm. mën a ubbi foofu nga wax. Mhm. parce que boo xoolee l'histoire dafay dafay mu ngi tourner autour benn royaume royaume def Falaar bu royaume bu pauvre la boo xam te ne amuñu woon daara. Mhm. amuñu woon sax suuf su baax pour bay. amuñu woon ay bétail. dañoo pauvre woon trop di ko mu mën a am sax lu ñu dundee dañ naan dem di kar ay caravanes yu daan ñëw Afrique di def trop. caravanes yu doon jóge ci dëkk naar yi. xam nga yeneen dëkk yi di payer seen seen marchandise ko yóbbu seen royaume. l'histoire ba mu demee nag ba mu yàgg caravane yi changé voie parce que xam nañ les routes étaient menacées par le royaume de Falaar léegi nag seen roi bi gis ne la famine xiif beeg mar beeg ngi gën a frappé seen royaume après ci leen dem euh, nekk foofu comme ko tuddee fii comme saltige wala borom xam-xam genre quoi mm-hmm. ne leen il faut ngeen trouver solution parce que sinon royaume dina disparaître mm-hmm. parce que actuellement moom mootul dem daal maanaam mm-hmm. léegi ba oracle defee seen concerta concertation ci la ñëw ne ko solution am na solution bi yàgg na ci royaume mais mosoo ko bàyyi xel. Mm-hmm. ñu ne ko am na benn falaise bu la bu tiim sa royaume falaise mm-hmm. dañ koy woy la falaise noire. Mm-hmm. boo demee ba si kaw nga fa benn créature boo xam te ne il fait partie ci euh, sept généraux Lucifer la bokk. moom yonentu yàlla Souleymane moo ko fa tëjoon moo ko régime am pendant quatre cent ans. daa soxla ku ko libéré il faut il lui faut benn. def benn pacte ak doomu aadama ak ak ak mbindeef parce que yonent Yàlla Suleymaan mbindeef la woon il fallait que mu jaare foofu léegi bu fekkee accepté nga nekk maanaam sa libération nekk offrande bi nga xam te moom la soxla moom dinañ ubbil bépp richesse boo xam ne soxla nga ko sa royaume léegi le roi Farbar la tuddoon ci la grimpé yéeg ba ci montagne bi gisante ak la créature ba mu ñëwee mu xam la ko damaa bëggoon nga jàppale ma ci misère bi nga xam ngi dal sama royaume damaa bëgg nekk le royaume le plus puissant de l'Afrique ba mën a sax dem ba concurrence Rome ak Perse. Mhm. léegi Sark moom mooy la la la créature démoniaque waaw mu ne ko waaw loolu mën a nekk te lu ma yombul en plus mun naan def loo xam te ni képp ku dugg dégg sa da ngay trembler. Mhm. xam nga règne Afrique wala neex sa nga nga étendre nga étendre maanaam sa règne partout dans le monde. parce que am naa kàttan bi am naa xam bi tamit. Mhm. mais mu ne ko waaye nag dafa am lu ma soxla daal instant nii euh, fi ma nekk nii yonent Yàlla Souleymane moom fi tëj pendant 400 ans. maag sama régiment dañoo bëgg a wàcc ndax na ñun àdduna dañ ko war a moom mhm. bu fekkee accepté nga nekk bunt bi nga xam ci yow la ñuy jaar wàcc mhm. lépp loo bëgg naa la ko naa la ay mine d'or yoo xam ne bépp suuf falaise boo romb di nga mhm. fekk or di nga fa fekk diamant waaw fa fekk lépp loo soxla mu ne ko accepté naa mu ne ko su boobaa léegi comme que accepté nga di nga am benn sët sëtaat bu war a juddu bu juddoo na ko tuddee Sangomar kooku mooy sama offrande moom mooy libéré sol bi ma nekk eh, bu juddoo dee tombé benn éclipse solaire bu am ci boobu ci noonu nga koy xàmmee di nga xam ne kii laa doon wax bu fekkee accepté nga alors ñu établir pacte bi léegi ci la Farba accepté léegi ba mu wàccee nag effectivement ñu commencé découvrir ay or mm-hmm. ci mine ci ci suufam ci mm-hmm. falaise gi mel noonu voilà ci la mm-hmm. construire sa cité commencé nag dresser armée puissant di attaqué yeneen royaume africain di leen jàpp jàmm di leen liggéey loolu di seen recherche mel ni comme genre colonisateur daal maanaam bon léegi nag le temps passe ba mu am benn grand guerrier bu ñu woowee Kanka. Kanka waaw nga xam ne moom bañkat la bëggul nooteel. Kanka ba mu gisee ni royaume de Falaar noot na Afrique yëpp. Mhm. mu ne lii mënut a wéy daal xam nga. Mhm. moom tamit ci la créé benn union africaine boo xam te ni mu ngi rassemblé troupes africaines yu bari comme les Zoulous les Maasai les les les Yoruba les Touareg. les Bafana Bafana royaume mhm. africain les Socha et autres. benn armée puissante boo xam te ne pour contrer le royaume de Falaar mais maintenant il fallait ñu provoqué ko. pour euh, engager moom bataille. ci premier bataille bi nag ci lañ gagné parce que le roi def Falaar à l'époque mu ngi amoon euh, le roi bu ñu woowee Bakka ak ses deux fils Zula ak Sangomar Zula moom moo nekkoon soldat moo dirigé armée bi mm-hmm. Sangomar moom c'était juste domaine administratif xamoo sax li l'unité glaive musta xeex mm-hmm. premier bataille Zula dafa dee après Bakka le roi le roi Pape Sangomar moom il était blessé léegi avant muy dee dafa woo sangumaan ne ko dama lay dénk royaume bi waaye dafa am lu ci nekk suñ domination bi warul fay da ko war a mm-hmm. continuer ne ko xam naa ne nag xamoo xamoo jaasi xamoo bouclier mm-hmm. parce que yaa doon gérer sama domaine administratif mais comme sa mag dee na mm-hmm. man tam maa ngi fiy jógee yow laa fi bàyyi yaay héritier bi maintenant ci la accepté ba mu accepté mu dagale généraux yi ak sage conseiller yëpp ne leen dama fas yéene continuer sama mission bàyyi Euh, étendre sa domination partout en Afrique dans le monde. léegi nag salle bi riir ne ko yow waxi xale ngay wax tu es un roi en fougue de jeunesse parce que boo xamoon armée bi tànkaa dajal nu mu puissant wee les meilleures troupes d'Afrique ñu ci biir notamment les Zoulous et massa Maasai te ñooñu xeex ak ñoom dafa jafe. léegi ci nag benn sorcier bu nekkoon fa bu ñu woowee baaw moo jug waaw mm-hmm. moo jug ne ko loolu mën a nekk la c'est pas on adonné adon c'est pas mm-hmm. anodin nga dajale ñu fii di ko wax. sangumaan ne ko loolu nan la mën a nekkee parce que expérience yi gars yi am ni ci wàllu guerre ba léegi ne généraux yi plutôt yéen ne mënul nekk mu ne ko am na benn force boo xam ne sa arrière grand-père moo la ko dencal da ngay dem nga approprier force bu nga jël ko boo ko jëlee képp dégg sa tur dina trembler parce que armée Kanka du ay cent mille guerriers moo koy repousser te faut une force qui une force surhumaine boo xamante ne redoutable moo ko mën a combattre maintenant si tu acceptes nga ñëw ñu wéet ma leeral la lépp. Mm. comme ni ko liiree noonu ci lañ wéet après ci la ko xamal ne ko am na pacte boo xam te ne yaa ko war a honoré. Mm-hmm. pacte boo xam sa arrière grand père moo ko moo ko conclure ak Sark. Mm-hmm. Mm-hmm. maintenant boo demee ba ci yéeg ba ci kaw falaise bi. nga honoré ko après ba wàcc di nga wàcc ak puissance boo xam te ne. di nga mën a repousser les armées de Rome et de Perse waxuma la Afrique kese. Ah, ci la accepté ci la yéeg ci kaw montagne bi nu mu déroulement bi nu mu ko nu ma ko décrire noonu ak scène nu mu demee. ba approprier force boobu noonu ci la wàccal ak régiment yi nga xam te mooy régiment Sark. Mm-hmm. Sark nag daal il est devenu morphe. ah il mooy koo xam te ne son âme est associée à à l' esprit d'un d'un daal maanaam mën naa mën a wooyee. léegi mm-hmm. histoire bi nag foofu la foofu la départ. Mm-hmm. léegi loolu noonu comme question bi nga posé pourquoi Union africaine tiital Sangomar parce que comme ni ko Mangin waxee mbooloo mooy doole Union kenn mënu ko téye. effectivement dafa puissant parce que li muy bu doon fa Angola bi kese ab mbooloo kese ñu mën wax waaye dafa am ci biir mbooloo. Mhm. am idéologie bu muy porté. il est arrogant dans la vie ban leçon la ci mën a tiré. waaw Mao c'était c'est moom mooy moo nekkoon le général de xam nga xam nga l'Union de Sorom mhm. ça regroupe plusieurs armées. Mhm. léegi nag ba Kanka demee ci roi yi leen damaa bëgg ngeen abal ma seen armée. expliquer leen la raison bi tax mu soxla armée yi. roi yi accepté dañ ko jox. Euh, ay troupe bu pare am ku ñu jiital ci troupe bi ñu ko jox Maowa nag il faisait partie de généraux de euh, euh, des Zoulous léegi Maowa nag moom c'était un guerrier boo xam te à sang chaud moom deretam dafa tàng comme Zoulou ñu mel rek foofu dama bëggoon wax ne déjà loolu en réalité les comme ça mm-hmm. même boo boo sànnee l'histoire de Chaka Chaka Zoulou mm-hmm. gis nga réforme yi ànd yëpp ci ci kii KwaZululand mm-hmm. alors Maowa dafa nekkoon koo xam te ne il était orgueilleux ba pare bañkat la woon parce dafa am dafa am dafa am lu ñuy wax kii lu ñuy wax euh, euh, nan laa ko mën tuddee dafa am lu ñuy wax euh, kii maanaam gis-gisu diri gis-gisu njiit. Mm-hmm. dafa dal maaw ci biir guerre bi. au lieu au lieu mu mu mu aller toujours sur les ordres de Kanka à un mm-hmm. moment donné. Mm-hmm. dafa dafa dafa détaché wu. parce que guerre bi demoon na foo xam méttoon na métti goo xam te ne mënut woon ko mënut woon accepter ces troupes di dee comme ça nii daal comme ay weñ. Mm-hmm. parce que c' était la première fois ñu leen di xaw a humilier à ce point parce que tamit l'ennemi était de taille c' est mm-hmm. normal mm-hmm. Sangomar c' était pas un humain à part entière maintenant maa bu mu gisee ni ces troupes sont en de de te bëggul dellu kwazulu le roi indaale effectif bu loolu de l' Afrique la woo tax moom il va se charger maintenant d' éliminer Sangomar maintenant il a désobéi Kanka mu génn ordre Kanka joxe woon dem dem dem song Sangomar ba li ko dal dal ko si loolu lu ma si bëgg kii rek mooy mooy il faut que union am mhm. da ngay nangu nekk conformiste da ngay nangu tënku ci mot d'ordre da ngay nangu tënku ci ci ndigal da ngay nangu tënku ci ci programme mais bu fekkee da nga bokk si ak union ba pare di détaché di créer sa yëf bopp say xalaatu bopp mhm. tu affaiblis l'union en tant que telle wala yow tu vas t'affaiblir bu yàggee danga lay écarté bu la écarté conséquence sax yow lay gën a metti parce que ñee bu ñu continuer nekk ñu suudee yow nga nekk ku ku wu après mhm. voilà lii tu vas payer les pots cassés mm-hmm. loolu c' une euh, c' est une forme de de message bu may jàlle parce que boo xoolee en Afrique daf ñoo xaw a dal mm-hmm. avec l'ère de Thomas Sankara Patrick Lumumba au début dañ la dajewal dajewale woon nañu mbooloo mu bari yoo xam te ne seen idéologie kii yoon na daal mais boo xoolee ci biir mbooloom comme Thomas Sankara Blaise ki ko ki ko éliminé son ami mm-hmm. s'est détaché avec une autre pensée beneen xalaat moo tax mu détaché wu allié avec moom sax dafa allié avec la France quoi comprendre mais Mao li mu def noonu c'est s'allier avec avec le vide c'est s'allier avec le néant mm-hmm. parce que amul sax fu mu wéer bu génnee union bi mais kii par contre Blaise moom ba mu génnee dafa wéeru ci France loolu yëpp c'est la même même forme bi la rek daal maanaam mm-hmm. il s'est détaché donc de l'idéologie Sankara pour s'allier avec l'autre idéologie euh, contraire loolu moo waral après gis nga problème yi mu andil Burkina Faso mm-hmm. donc foofu da jàpp ne Burkina Faso c'est comme une boo xamante ne détachement wu benn généraux benn général moom moo créé déséquilibre bi am ba tey ji hmm. heureusement dans l'histoire bon kon koy kii bind moom mooy contrôler hmm. j'ai fait de telle sorte que certes affaibli na l'union de Soroñ bu baax sa sorti hmm. mais après bon y a un ressaisi ressaisissement bi am entre ñoom seen biir seen programme ak seen seen stratégie de guerre la mort de Mao donc ça a été une grande perte mais ça n'a pas affaibli l'histoire euh, parce que tous les guerriers de Soroñ on appris de la mort de Mao moo tax bu ñu ñëwaatee ñu ñëwaat ci kànkaan ne ko. Mhm. joxaat nañ la les ren mhm. c'est toi le le dignitaire de ce champ de bataille sa ginnaaw leen topp. Mhm. ab ci le roi ak soldat yëpp engenouillé devant moom. samp seen glaive ne ko yow lañ jox kàddu gi daal maanaam. parce que li dal Mao xam nañ ni mun na nekk à leur perte ñoom ñëpp daal maanaam. foofu donc boo koy lii dañuy gis ni mbooloo bu nga xasee établir ak ay idéologie da ngay conforme sinon rek boo génnee. di nga sa bopp di nga affaibli mbooloo mi tamit daal maanaam. Hmm. voilà foofu loolu laa bëggoon wane foofu. question rek serait nga defal ñu benn petit résumé sur les de morale yi nga xam ne mën nañ koo tirer ci tome ak tome sama genre bi nga xamante ne gisaguñu tome 2 ñu xam muy kii. waaw tome 2 bi moo nekk nii euh, euh, hmm. que mooy suite bi. fii lépp loo xam ne. gis ngeen lu mel lu lu yeggut mm. fi lañ ko yeggalee lépp lu explication boo xam te ne xaw na mel lu dagg fi lañ ko fi lañ ko yeggalee aussi donc euh, livre bi moom dafa bëri ay leçons de morale yoo xam ne euh, def ci kii boo ma àllee itam euh, ma am juste li ma la kii déjà ci citation yi rek mm-hmm. première citation comme bi nga njëkk a lire c'est les âmes illuminées combattront et porteront les flambeaux de la liberté bi ma expliqué sànq am na bi ci La jeunesse et la poutre qui soutient le plafond du temple de la vieillesse. Si ta jeunesse est saccagée, le toit de ta vieillesse s'écroulera sur le sol de, du regret et l'araignée de la mort y tissera les de l'oubli. Citation compliquée. waaw ah, compliqué pour naa nag compliqué wul de. <laughs> ba fii nii dama li ma bëgg expliquer mooy àdduna boo koy defar. Mm-hmm. ndaw mooy defar àdduna daal maanaam. effectivement la jeunesse c'est pas l'âge. Mm-hmm. la jeunesse mooy la capacité de mm-hmm. faire xam nga. la capacité de penser à temps réel xam nga à temps important c'est c'est lu am solo la parce que des am na xalaat yoo xam day weesu day fekk mbéy li naan béy woy na mbuus mm-hmm. nit bu demee ba am yenn âge yi commencé bëgg a defar société soit du réussir day métti si moom trop trop trop du mu bay réussir sax mooy mooy mooy mooy gën a mooy gën a yomb alors fii loolu moo loolu laay wooy la jeunesse et la politique qui soutient le plafond du temps de la vieillesse maanaam jeunesse moom mooy fondement vieillesse sa li yàlla naan jox ma sa ndaw ma teel sa mag bu fekkee maanaam yow sa jeunesse da nga ko da nga ko saccagé maanaam da nga ko fowee boo nee ba nekk mag mag mu fragile ngay doon mag moo xam te ne yu bëri daf lay won ginnaaw fii bëri na ay ay ay ay mag ñoo xam dañoo wéet bu nee am yenn âge yi même seen njaboot sa dootu ñu leen soxla dañuy mujj di wéet di déglu ay ay rajo wala dem ay grand place wala mel na wala si si c'est vrai parce que ba nekkee ndaw am na étape yu bëri yoo xam ne dañ ko sotee maanaam dañoo toppoon xëy na yeneen gis-gis wala yeneen bànneexu bakkan ba tax jot ñu woon préparé seen VIS. Mm-hmm. alors euh, loolu laa bëggoon leeral fii nii donc ba léegi ci contexte leçon yeeg euh, yi ngay wax noonu ak message yi important yi mu ngi mu ngi subaase wu ci Afrique ba léegi parce que l'Afrique jamono mun toll nii son avenir c'est la jeunesse. Mm-hmm. parce que Afrique boo xoolee continent la boo xam ne moo ëpp jeune ci démographiquement ci àdduna bi daal boo xoolee. jeunes yu ñu am jeunes yu am potentiel lañ mhm. physiquement et mentalement ba bokk na sax li tax euh, OMS ak yeneen yeneen lobby yi fi nekk bëgg a réduire leen naissances en Afrique ba yaa ngi doon ay programme yu xew yu bëri mhm. gars yi di ko commentaire ci réseaux sociaux et tout parce que xam nañ ni Afrique moom mooy le futur du monde boo xoolee parce que jeunesse boo boo xam te ne il sont près di commencer di manifester ay ay idéologie révolutionniste mhm. révolutionnaire plutôt excusez ci domaine panafricanisme da lay wan donc ëllëg dinañ porté le flambeau boo xam ne moom mooy mën a leeral le continent africain mm-hmm. donc lépp ci jeunesse lay xew daal maanaam mm-hmm. jeunesse si la mën a établir ay programmes dans le futur mm-hmm. avec la tête froide avec aussi l'énergie qu'il faut comprendre nga alors dans ce livre li boo xoolee euh, bokk na si leçon yu gën a am solo yu may yi may établir tam yi may wane mooy à chaque fois que nit jug na pour def lu baax lu mu metti metti dina am ndimbal c'est pourquoi boo xoolee dans la à la fin. Mm. ba Sangomar dominer l'union de Sorum ba naroon euh, assassiné Kanka. il y a une lumière boo xamante ne moo feeñ. il est apparu un cavalier sur le champ de bataille. Mm-hmm. cavalier boobu nag boo xoolee moom mooy principal personnage tome un tome deux bi. loolu benn ndimbalu boo xamante ne dafa dikkal l'union de Sorum parce que seen yéene moom màggoon trop. Mm-hmm. donc nit booy jug def loo xamante ne nii intérêt société ñëpp la. Mm-hmm. nga dëggu ci ànd ceeg conviction. quel que soit lu mu métti métti dina am lu la venir en aide te loolu noonu lu divin lay nekk luy si yàlla suñu boom lay bàyyi ko benn force boo xam yow sax doo ko mën a expliquer mm. loolu moo dal union de Sërëm mm. naka noonu aussi ci biir da ngay gis benn esprit de patriotisme bu am doole. bu mm. Kanka di wane à travers ses discours ak aussi di ko yeneen euh, frères d'armes yi di at accompagner. loolu dañ ciy gis ne maanaam société boo bëggee mu avancer bul ñàkk kañaan. Mm-hmm. ki la ëpp potentiel nga gis ko si moom ëpp la ay. ëpp la xam-xam nangul topp ci ginnaawam parce su ko taxu say homme des comme ni ko mag ñi di waxee c'est pas parce que damaa gis ni yaa ma ëpp potentiel yaa ma ëpp xam-xam rek que maa la mag wala maa la ëpp statut waruma rallier si ginnaaw parce que ku nekk ak sa domaine mm-hmm. tey jii boo duggee hôpital indaale mas ba doctorat en physique chimie mm-hmm. bu la mesee ne sumeekul ma ma ausculté da ngay summeeku parce que du sa domaine mm-hmm. noonu la demee mais fii da ngay gis en Afrique rawatina au Sénégal entreprise da ngay dugg nekk nouveau fekk fa ñoo xam ne ñoo la jiitu ay cinq ans sept ans xam nga nga gën leen a compétent mais au lieu ñu xool luy doxloo entreprise mu jëm kanam mais non mm-hmm. dañ naan non diw du ma raw diw du ma raw mu jàll lañ dem ci ay ay sëriñ wala dem di la jaxase ak ay mm-hmm. sa patron genre mm-hmm. am ay genre xeex ay guerre yi am ci biir entreprise yi loolu noonu day refléter suñu société tolluwaay bi te tolluwaay boobu noonu fekk mu ngi fi lépp lu ñu song duñ ko daan lépp lu ñu projeté duñ fa yegg parce que nos propres ennemis bu doon jóge à l'extérieur fekk ñu ñu booloo mun nañ xeex xeex bu équilibré mais bu dee yow suñu ennemi mu ngi suñu biir. mu mm-hmm. ngi départ suñu xel yi ak suñu gis-gis yi. Mm-hmm. mooy waral société africaine yi boo xool lu ko tàddal loolu bokk na si. Mm-hmm. coup d'état yi nga gis yëpp président yi rey yëpp seen ay xarit ñoo leen rey. xam nga loolu noonu misaal la. exactement donc loolu bokk na si li may wane ci libre bi comme quoi maanaam euh, nanga nga nangu nit jiitu la ëpp la ay capacité nga xam ne loolu noonu c'est pas parce que da da nga. da amul xam-xam wala autre daa fekk ne àdduna yàlla dafa séddale ku nekk afam dam am domaine bu mu lay yeewee mm-hmm. maintenant nag nit ki gën laay yeewu ci domaine bi warul tax nga ko koy iñaanee mm-hmm. parce que mënoo yeewu fépp tu mm-hmm. comprends mënoo fépp donc voilà nañ jàppale njiiti c'est très important njiiti aussi nañ xam ni li ñu yore du seen alal du seen moomeel quoi te lañ ko dénk moo tax ki tome 2 bi ma ñëwaat encore ci le roi des pygmées suudu parce que gànkaa laage na ko yow buur nga may bizarrement gisuma nga yor couronne gisuma nga yor trône da ngay ànd ak man di ma jox may lekk di ma guider comme guide et tout quoi mm-hmm. benn bant daal laa gis nga bant bi moo la sut mm-hmm. mu ne ko bant bii nag mooy représenté mission bi nga xam te ne moom la sama peuple jox mm-hmm. boo gisee ma tànn bant bi ma gën a gudd c'est pour wane ne li nga xam te ne mooy sama rol en tant que roi moo gën a ëpp solo sama jëmm ji mu ne ko laa véritable couronne d'un d'un roi c'est son peuple te il le porte pas la tête mais dans son cœur loolu la koy leeral daal maanaam couronne bi roi sol nii loolu du loolu noonu mooy mooy définir royauté. couronne mm-hmm. dëgg mooy sa peuple. te doo yenu doo ko yenu sa bopp mais sa xol nga koy def. loo yenu sa bopp moom bu yàgg di nga ko yenn parce que bopp li mu attan ñëpp xam nañ ko mm-hmm. mais lu ne ci xol. Mm-hmm. loolu dara mënu ko domte. waaw loolu bokk na si parmi tant de leçons yi nga xam te ne ko si jàll daal maanaam. macha allah monsieur Diouf suñu sañoon sax doo jeexal waaye benn question la avant euh, avant la fin. muy sëñ Babacar séeréer la wala nit la. <laughs> votre mot de la fin. ndax séeréer laa wala nit la. un. question boobu moom question daal question bu mu neex nga posé nag quoi. waaw. séeréer laa wala nit la euh, séeréer moo defar nit ndax nit ay jukko la jukko yëpp boo ko dagalee boo demee ci séeréer da nga fay fekk kon ñun ñun ñëw jur ñun ñoo jur nit. Hmm. waaw. non comment pour éviter la polémique votre mot de la fin monsieur Diouf. <laughs> waaw maa ngi di sant bu baax. vraiment parce que seen déplacement ba fii nii moo leen ci bañ a fekk. Mhm. mais da ngeen a bokk tamit si chaîne yi nga xam ne ñoom euh, dañoo jóg pour tasaare dëgg. pour mhm. yeete tamit c'est c'est très important parce que Sénégal lañ nekk ñun ñëpp ay Sénégalais lañ gis nañ fi ay chaînes yoo xam ne boo ko boo ko taalee. musique rek nga fay fekk ak yoo xam ne amul benn sens day distraire nit ñi mais du leen yee. Mhm. te distraction moom. bu yàggee day day day fay xel. distraction bu bëri day fay xel xel nag li koy taal bokk na si maanaam ñu lay ñu lay pousser à ce li ngay xalaat nga koy génne ñu lay corriger parce que man matuma j'ai fait des erreurs je continue à de faire aussi des erreurs mais à travers livre yi rek am naa si ay critiques yoo xam te ne jàppal ne ma yu bëri am naa si aussi ay encouragement tamit. Mhm. certes mais li ngeen def nii maa leen si encouragé bu baax te aussi bu ngeen mënee ñu man yeneen jeune talent yi fi nekk moo xam yeneen domaine. ngeen dem seet leen aussi. Mhm. partager ak ñoom seen ay gis-gis. Mhm. parce que ñoo toll foo xam ne nii il faudrait que ñu xam Sénégal lan lay xalaat sénégalais bi lu muy xalaat c'est très important. Mhm. mise à part kaas ñuy kaas dund gi cher na walla dëkk bi yomb amul liggéey amul nangam. loolu yëpp c'est vrai ay ay problème la mais aussi toll nañ foo xam ne soxla nañ xam jeune bu nekk la nga xalaat c'est quoi la solution bi nga proposé. ci problème yi nga am ci dëkk bi daal maanaam. bu ko defee noonu après yu bëri dina def tâche d'huile gis-gis yu bëri dina jàll dina dina tasaaroo te nit ñi aussi di nga xam ne dekkate àdduna am na yeneen priorité yoo xam ne bokkul ak lekk ak naan wala tendance wala ay buzz ak yu mel noonu daal c'est très important mais médias yu bëri léegi ci buzz la ñuy dox te buzz moom balaa mat une semaine mu fayaat da ngay obligé de commencer à zéro te da ngay ngay dem si ñoo xam ne nii daanaka vie yi ngay soxla sax dund ko may bu pare tamit day yàq sa crédibilité chaîne c'est très important daal mm-hmm. xam na dañuy wàcc foofu kàddu yi rek mm-hmm. bu ngeen amaatee beneen laaj incha allah. jërëjëf monsieur ñu ngi lay remercier waat bu baax a baax ci dalal gi nga xamante ne dalal nga ñu ko képp koo xamante ne tamit bëgg na ci œuvre bi comme ni mu ko waxee mën na woote ci 77 434 61 56 amaana ndaw ñu baree bari war nañ ci ut ngir gën a bàyyi xel yi nga xamante ne wax na ko ci lu ci mel ni puissance pouvoir ak patrimoine ndaw li nga xamante ne tey alal jaral na ko mu jaay ngorom jaay dignité wala jaay amam est loolu noonu am na lu ko jar ci kaw suuf pour man déedéet ndaw li nga xamante ne tey yàkkamti na yàkkamti goo xamante ne amul patience su xaar ndax jar na nga dem ci yenn euh, endroit yi pour euh, vendre ton âme au man pour man déedéet ndaxte bu ñu fàtte ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala bi mu wàccee doomu aadama da ko wàcc ci fitra bu set kon ndaw li war na fexe ba sàmmante àq boobu nga xamante ne amal na ko digganteem ak boromam su ko defee rek euh, képp koo xamante ne bëgg na ci dina mën a woote Diop di remercier suñu invité ku xam temps xam ne temps yomb la am waaye bàyyi na li muy def yëpp dalal ñu kon waa Ali Imran TV amuñu sa fay su ko defee ñu ngi jox dig daje suñuy chers téléspectateurs ñi nga xam ñu ngi topp ci suñu jotaay suñu gan fii ak 15 jours incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu merci beaucoup samay technicien Moustapha raw nga ñiile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 283 38 38 su ma yëbbitik nekk fii ci Parcelles Assainies marché Dior ku nu waajal foo wàllee daal